aayaat yi Mohamed nduur doon jàng yàlla dafa ciy wax yahud yu bon yi dëkkoon ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ca madinatul munawara lëjël giñ ko lëjëloon bokkoon na ci liñ ko lëjëloon mooy ñëw ne ko li ngay xoote duñ ko gëm mukk dugg ci lu dul danga ñoo wàcceel ab téere boo xam ne ñun ñoo koy moom mu nekk téere boo xam ne mbëmbëstal lay doon wenn yoon rekk lay wàcc comme ni tawreet wàcce woon wenn yoon yonentu yàlla musaa joxoon ko suñ maam yi yàlla nag di defal yonentu bi ne ko liñ lay laaj sax amuñ ci soxla même boo wàccee woon ci ñoom téere sax du tax ñi gëm la te doom ju ne ñaareel baay ja lay niru te sa gaa yi seen baay yu bon ya la ñu niru ndax lii ñu laaj la lu ko gën a garaaw seen baay ya laajoon nañ ko Muusa te mooy Muusa bi mu tànnee juróom-ñaar fukki nit ñoo xam ne yaakaar na ne ñoo gën ci aw xeetam yóbbu leen ca deeyaale ga Moussa di dégg kàddu yàlla mu ne bi mu koy dégg jëmmam ji lépp a ko dégg ndoor ba mu koy dégg neex gi mu neex ci jëmmam amul lenn lu neexee ni moom ci àdduna fekk nag yàlla dàq na wuxuus yaag muy njaaxal yaag njanaaw yàgg yépp ba ñu sori mu door a def ak déyaaleeg moom ñoom nag ñu ne ko yow Moussa li ngay dégg daal tànk dégguñu ko nga wan ñu sa borom ñi mën koo gis jàkkaarlook moom li ngay woote duñ ko gëm mukk kon ñooñu lañ laajoon seen bàyyi lañ laajoon Moussa ne dañoo bëgg moom mu wan leen seen borom te sax fekkoon ne dañ koo laaj ngir sopp yàlla mbaa bëgg ko du leen wàññi dara mais dañ ko koo laaj laaju diingat laaju kontur looloo waral de yàlla ebal jibril mu xaacu leen rek ñoom ñëpp ñu alku ko waaye yonentu yàlla Muusaa mi ko laajoon laaju sopp yàlla wàññiwu ko dara ci rabbi arinii anzur ilayka waaye nag ñi ñoom dañ koo laaj laaju diingat ko yonentu bi nag yàlla ne ko kon na sa xel dal ñii daal ay doom lañ yoo xam ne seen baay yu bon yi rek lañ niru seen baay yu bon yooya ñoo fi jëloon aw yëkk woo xam ne Muusaa Saamiri yu moo ko yett jël suufu tànk Jibril sotti ko ca gemma ñu ko mu nañi mu ne hada ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ñi sax fa ñeen fukki fan di ko jaamu ba sa yuma ma leen tëkkoo ci seen ak mbon ak safara rek ñu ne lan tamasana naru illa ayyaman ma'duda kon ñi seen ak mbon la seen bon nga bokko na ca bañ defé loola jéggal na leen terewut bi bi yonent yalla musa wacce tawret yalla wacce ko ci mom war leen ko jox condition ya diis li ci nekk ci ay ndigle ak ay tere ñu ne mënuñ koo bàyyi dafa diis ma yebal jibril rek mu am xaaj bu mu fëkk rek ci doj wi muy wa isna taqanal jabala fawqahum muy ab yar mu tiimale leen ko ne bu ngeen jëlut maanaam condition yi nekk ci tawreet doj wi daanu seen kaw ñu nangu ko nangu ñàkk pexe waaye ñu ñi ñu ñu pratiquer ko kon day jël seen mbon mbon yi par benn mu ne ko seen ak mbon bokk na ci dama leen waxoon ne dugg dëkk bu ñu tuddee ariha ñi ne baytil maqdis ma ne bu ngeen fay dugg nag na ngeen sujjóot toroxlul yàlla waaye mbon tax ñu fay dugg di diri seen njëkkeekaay yi lu yàlla bind yahud moo ci gën a bon mu ne ko yii yëpp seen bàyyi jaar nañ fa ak Muusa kon nag doo seen euh, doomam yi seen doom yi nga dëkkal ñoom ci mun Madinatul Munawara wallahi lañ daj lañ lañ lañ lañ lañu daj ak Moussa genn wàll ga dajagoo ko yooyu nag daj daj yooyu la koy nettali par benn moom lay wax si nii ci ayaat yi moo tax sama borom ne yasaluka dana laaj la yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku lay laaj ahlul kitaab yahood yi ahlul kitaab buñ ko waxoon yahood ak nasaraan lañ ci namm waaye fii nag yahood yi rek lañ ci namm moo yahood yam dëkk ak ca sa munawara banu quraysata ak banu rek ñu mel ni ñoom ñu ngi lay laaj antu nazila nga wàccee wàccee mbëmbëstal alayhim ki ñoom kitaaban ab téere téere boo xam ne day wàcce ndoor lépp nga teg ko ci seen loxo comme ni tawreet wàccee woon ndoor lépp ñu tegoon ko loxol seen bàyya mi ne samaay téere bi bàyyi ko ci asamaan waaye dañ lay wax rek waaye sax bu téere wàccoon duñ gëm te lii ñu laaj la lu tuuti la boo ko comparé ak li seen bàyyi laajoon moo tax mu ne faqad saalu seen bàyyi laajoon nañ musaa Muusa ak akbara lu gën a rëy min zalika ci loolu ñu laaj la muy wàcce téere bi ñu ne kon lu seen bàyyi laajoon mu ne fa qaaloo seen bàyyi waxoon nañ di laaj Muusa ne ko arinaa wan ñu laaha yàlla jëhratan ci janoo waaye nag fekk na laajuñ ko ngir ak bëgg yàlla ak sopp ko bu doon loolu du leen wàññi dara waaye dañ ko koo laaj ngir ak diingat moo waral rek bañ ko laajee fa ca saasa aqsathum la leen jàpp asaaxiqatu xaacoog jibril bi zulmihim bu seen ak tooñ ñi dee li seen bàyyi defoon tamit defoon ko bokk na ca su ma gannaaw si nga ittaxasoo jàppoon nañ ak illa yëkk wa mooy yëkk wi nga xam ne Moussa Samiri yu moo ko yettoon ci or bi mu jëlee woon ca niti firawna ya ba mu paree mu jël suuf sa sotti ko ca mu naan ñi rek mu ne kii de mooy seen yàlla ji seen maam ya bon heggoon na ci fi yàlla jaar ak ñoom ci len xaral leen baxaru xalsuum toroxal firawna seen noon ba ñu jàkkaarloog moom ba Moussa jàpp na ñi ma baax la ñooy ñii ndeke ñooña daal ñu mujj jël aw yëkk di ko jaamu diiram ñeen fukki fan moo tax mu ne su ma taxasoo topp jàppoon nañ ak illa min ba'di ma jaatuhum gannaaw bi nga xam ne dikkal na leen albayinaatu naatu ñu leer naññ euh, yoo xam ne dafay tegtale wéet ak yàlla ak kartanam ak ci tawreet ak njàngat ya bañ defee lii lépp fa afafan fa afaf naa jéggal nañ han saalika walis loola wa aatay naa joxoon nañ Muusa Muusa sultaan nan lay mu binan ngay aji biir waaye taxul ñu gëm ko ba mu binan ja nag moo doon tawreet bañ leen ko indilee ne leen jàpp leen xudu ma ataynakum bi quwatin ñoom nag ñi bañ ne condition yi dafa diis yàlla nag hebal jibril rek mu xenu doj wa rek tiimale leen ko mu nekk ab yar moo tax mu ne war a fax naa yëkkati woon nañ fawqahu mu tiim leen atuura doj wa bi misaaqihim ngir ak seen ak kóllëre bi misaaqihim ci sababu seen ak firi kóllëre ga wa waxul naa waxoon nañ lahum ñaal leen ba tey ci seen bon bon ya udduxuloo tàbbi leen albaaba buntab dëkk bi su jadan mbir mu ngeen way su jóot su ko defee ñi bañ jàllar dugg ca dëkk ba di darngu yàlla ne ba tey waqul naa waxoon nañ ko seen bon ba ni lahum ñaan leen ne laa taxadoo bu leen jalgati fii sabti ci samedi ay mool lañ xoon ña dëkkoon ca aylatu yonentu yàlla daawuda nekkoon seen ab yonentu su ko defee nag ñoom ñi laaj ne ban bis la yàlla commencé bind àdduna ñu ne dimanche ah, la commencé ajjuma rek diggante tàkkusaan ak timis lépp pare mu door a bind aadama moom la mujj bind ne ko nag li ma doon bind yëpp yaa tax kaay nga jariñoo ko moo tax ma mujjee la géej gi pare na kaay nga jariñoo ko ak suuf seeg asamaan seeg gàncax yeeg mala yeeg yëpp léegi nag ñu ne waaw samedi nag lu yàlla def ñu ne samedi de yàlla bindul kenn bindul dara ñu ne kon ñun nax nu abnaaullaahi wa ahibaawoo kon ñun daal dañoo mel ni doomi yàlla mel ni ay soppee yàlla kon ñun dootuñ liggéeyati samedi yàlla nattu leen te fekk ay mool lañ bis yëpp jën du am bu samedi jotee rek jën ya bëri yàlla bu bëggee xalak aw xeet dafa lay tere dara ba pare lam tere mu bari ko say bët ba doo ko mën a moytu léegi nag dëkk ba def ñetti xaaj benn xaaj ba ne ñun dañ leen di tere ba pare toxu toxu dem beneen xaaj ba ne ñun terewuñ toxuwuñ waaye rëbbuñ ku ñu ku rëbbi nag bu ñu mayee maccaat ñi lekk yàlla dogal beneen xaaj ba ñoom di rëbbu rëbb ga mooy dañuy gas ay pax ay kaaw jën ya dugg ca bisab samedi bu dimaasee ñu rëbbu leen bu ñu leen waxee ñu ne ah rëbbu samedi la ñu tere waaye tere lu ñu fexeel jën yi samedi xam nga loolu ak caay-caay mënu koo paase waaye ba yarab yàlla ba ñëwee ña toxu woon terewuñ terewoon noppi yàlla noppi ca ñoom maanaam ña terewutoon te dëkk ak ñoom noppi yàlla noppi ci seeni mbir ña leen terewoon yàlla ne musal naa leen ña doon ña doon rëbb yàlla xalal leen soppi leen ay mbaam xuux ak i ay golo ñu nekk ko diiram ñetti fan door a dee yàlla na jaar naag fii euh, maanaam ak seen seen bàyya muy laa taaddoo bu leen jalgati fii sabti ci rëbb ci rëbb jën samedi te mooy booba ay mol lañ bañ ko firee waa xas naa jàpp nañ minhum ca ñoom ba tey misaaxan xollëre xaliisan bu xiis ci ñu war a jëfe li nekk ci tawreet waaye ànd ak lii lépp ñu firi ko fa bi ma naqdihim bu seen ak firi misaaqahum seen kóllëre ya wa kufrihim ak sababu seen ak weddi bi ayaati laay ci ay yàlla yi waqat liim ak sababu seen ak rey anbiyaa yonantu yàlla yi bi xëyri xaqin ci lu du dëgg sax xam ne ne sax du dëgg ci ñoom wa qawlihim ak sababu seen ak wax ne xulóobu naa suñ xol yi xulfun dafa am ay muuraay dafa am ay muuraay xulfu jamoo xilaaf suñ xol bi daal dafa am muuraay moo tax li ngay wax dégguñ ci dara yàlla ne bal li fi nekk tabaxa dafa lënkaañ laahu yàlla alayha ca xol ya bi kufrin sababu seen ak weddi illaa xal na du dul ñu néew ñu néew ñi nag mooy Abdullah ibnu Salaam ak ñu mel ni ñoom kon gis nga saañ caay-caay gi yépp mi ngi nii jàngoon nañ ko suratul baqara jàngoon nañ ko yépp yi ma jaar jaar bu gaaw moo tax ma jaar ko ci benn bu ci nekk yàlla nettali woon na ko suratul baqara benn par benn ci seen ak mbon ci fukki euh, euh, xéewal yi leen yàlla def ñi fayee yàlla fukki bon bon yàlla delloo leen fukki mbugal yooyu tamit la la am yum ci jaxase am yum ci jaxase seen diggante am mu ci dugg mu ci tudd am yu mu ci bàyyi waaye toftaleewut ko comme niñ toftalooxee nam toftalooxee nag boo ko bëggee xam da ngay delluwaat ci suratul baqara te waxoon nañ ko ci ba mu gën a leer muy seen jaamu yëkkuwaak ak la ca aju aaya ji tegu ci ba tey dafay continuer rek seen bon bon ya yahood yooya muy seen baay ya seen bon bon ya bokkoon na ca li xew léegi rek xas nit ku baax nit ku yàlla baaxal nga yëg ne kenn gënu ko waaye mbon tax nga dugg ci réseaux sociaux yi di yàq deram di ko publier moom lañ def yonentu yàlla ñoom moom maanaam moom ñoom moom lañ def yonent yaayu yonentu yàlla Isa di naa Maryama ñu ne Maryama mooy katab yàlla la dafa mooy dox di taxawaalu ba xam doom joo xam ne amul bàyyi lii nag bañ ko waxee yonentu yàlla isa mer lool yahud yu bon yi saaga gi ñuy saaga yaayam mu def xettaliku ci yàlla tàllal ko ay loxoom ne ko yow yàlla yàlla nga toroxal ma yahud yii ci wax yu bon ji nga xam ne ñu ngi koy teg sama der di ko teg ci deru sama yaay may gi ma may yow yàlla su fekkee dëgg la nag ma toroxalal ñii ñaan nga nangu yàlla soppi leen ni golo soppi leen ay mbaam xuux yeneen yahood yi nga xam ne soppeekuñ loola nag ñu ne Isaa mii buñ ko bàyyee nii danañu toroxal nañ ko rey ci lañ kompaloo nag départ tattiyaanuus moo leen jiite woon ba ñu demee ba fi Moussa fi yonentu yàlla Isaa nekk ci néegam bi fekk Jibril ñëwal na ko indi ko message bi ne ko sa gaa yi dañoo fas yéene pour rey si la mais sa borom dana la yëkkati nga jëm ci kaw asamaan moo tax yàlla ne wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walakin subbiha lahum am na fu muy wax ne bal rafaxahu laahu ilayhi yàlla nag yëkkati na ko booba fanweeri at la am ak ñett ndax fanweeri at la am yàlla yónni ko nubbuwatoom ga ak risaalatoom ga mi ngi ci sax ñetti at yàlla yëkkati ko ci kaw asamaan ba léegi deexagul yonentu bi nee na bu ñu demee ba mu jëg jamono yonentu yàlla Isa dana wàccaat bu wàccee nag dana fi def juróom-ñaari at mooy toj mboolem xërëm yi fi ne mooy rey mbooleem mbaamku yi fi ne mbooleem ak dëngate gu fi nekk ci wàllu atte teguwul ci yoon bu ñëwee moo jël justice tegaat ko ci yoon ñépp nekk ci maandu jamono jooja golo bu dajee xaj sax maanaam du ko dàqe muus bu dalee bu dajee janax du ko dàqe maanaam ndax njiit bu maandoo animaux ya nekk ca jamonoom ja dañuy maandu xaale ca maandoom ga loolu daloon na Omar ibnu Abdul Aziz diirab xilaafaam bi mu toogoon xaj dàqewut golo golo dàqewut muus muus dàqewut janax ñépp a maandu population bi ba mujj animaux yu mujj maandu su ko defee nag jamono jooju nag lay wàcc boo ñëwee nag mooy tëj wilaayatul ama wilaayatul ama mooy nekk xaatimul wilaayati al ama bu wàccee nag yonentu yàlla Isa moomu nag moo koy tëj loolu nag lay wax waaye yonentu yàlla Isa mi ñu wedd ñoom yahuud alquran nee na amul benn yahut lu dul bala ngaa dee ba toog ko ci xarxarle danañ la nataalal jëmmi yonentu yàlla Isaa ci sa kanam ne la ndax gëm nga ko nga ne gëm naa ko nga door a dee waaye gëm goo nag du leen jëriñ dara ndax gëm goo xam ne dangaa dem ba toll ci sukkuraatul boo ko gëm yàlla du ko nangu mooy mooy ñi fi ne te fekk wàccegul bu demee ba wàcce tamit gannaaw bu mu wàccee juróom-ñaari at yi mu fi ne ñépp koy gëm waaye nag fii ba ba muy ba muy wàccee amul benn yahut bu ko weddi woon ñi fi nekkoon ak ñañ meññ ñëpp lu dul bala ñoo dee rek yaram yàlla bi dana leen tiim ñu ne gëm nañu yonent yàlla isa yàlla toroxalee leen ko waaye du tax gëm nga jariñ leen dara ndax gëm ak tuub goo xam borom dafa dem ba tokk ci xar-xar lay dee door di def du ko jariñ dara kon moom mi ngi dund ci kaw asamaan moom ak yonent yàlla idrisa ñooy ñaari yonent yi nga xam deexagun te ñu ngi ci asamaan imaamu Suyuti yi moo ko wax boo demee ci tafsir bu ñu tuddee ad-Durrul Mansuur da nga ko ci fekk mu ne nag yeneen am na yeneen ñaari yonantu yu nekk ci maanaam euh, maanaam biir suuf bi euh, kaw suuf ñooñ ba tey tamit deexagut Ilias ak Xadir ñu jàpp ne maanaam Xadir yonantu la ñoom ñaar nag muy Xadir la yàlla wakkil mbiram géej gi képp ku fa dee di jullit yéen sama mbokki mool yi bu ñu leen julleewul na seen xol sedd am na ab nitu yàlla ku yàlla wakiil leen moo leen di toppatoo sang leen sang leen jullee leen jébbal leen seen borom bépp jullit bu dee ci géej rek am na ambassadeur yàlla bu fa nekk di leen toppatoo su ko defee tamit nag képp ku dee ci jéeri ji say mbokk gisuñ la ak noo mën a deexee Ilias dana toppatoo say mbir ba jébbal la sa borom moo tax yàlla dara am neenul ku ko xam xam na ko rek waaye néglisé wut dara néglisé wut benn jaamam amul Ben mbindeef bu mu bind sax nga am noy yàlla di la néglisé jamaa daal di sax yàlla néglisé wul leen kon amul dara lu neen kon ñaar ñee nag ñu ngi ci kaw ñaar ñi ñu ngi ci suuf ñaar ñee nag at mu jot nañ dajee xarafa déggante ay baat kenn ku ne wat sa kawar ak morom ñu teqali koo xaat loolu waxoon nañ ko ci liñ passé xol ci seen bon bon yi lay wax ni fiñ jaar ak isa ba isa ñaan leen yàlla ñu soppi leen golo ñi départ ne dañuy dem di rey Isa yàlla yëkkati na ko ki nga xam ne moo jiite woon Kuuba nag ñu ne ko dugal moom ba mu duggee rek yàlla solal ko mbubbam yonentu yàlla Isa mu niru Isa gaa yi fekk ko fa ray ko bañ ko rayee nag ba pare génn ñu ne waaw ñun suñu lim bi suñ nombre bi manqué na su fekkee Isa lañ rey ana Tatianus su fekkee Tatianus lañ rey ana Isa ndax yàlla dafa jël Kar ak yonentu yalla mm. isa bi soral ko ko waaye jëmmam ji moom jëmmam lay niru ñoom ñëpp ñu ne waay xarxaram bi de xarxaram yonentu yalla isa la mais jëmm mais tank yeeg li ci aju mom tanki tatiyan musla ñi mujj nak bayyi lol ne bayyi len lol bu len ko ñi ñu mujj ne reyuñ kenn isa rek lañ ray c'est feñal lola seen nit ñi top len ca ba yalla mo len mujj wër ne li ñi wax dara du ci dëgg wa ma wama salabuhu walakin subbiha moo tax gis nga alquran bu ñëwutoon dana bëri histoire yu dul leer am na ci histoire yu fi jaar yoo xam ne dafa lëndëm woon ci ñooñ jamono ndax ña ko waroon a leeral lëndëmal nañ ko nëbbu seede ga alquran na ñëw feeñal ko asxaabul këf fi seeni mbir nëbboon na historien yooyu yépp mais ba ca alquran waxee ba léegi kenn waxatu ca dara histoire zul ni fi mu jaar réeroon na nit ñépp rawatina mu jëg jamono ba ca alquran addoo la mbir ma leer nañ ñi kenn laagatu ca kenn dara mbiram yonentu yàlla Isa ak sayyidatuna Maryam ak nu mu def ba am doom boobu histoire nëbboon na ñëpp kenn ku ne wax ca lu la mën a yóbbu safara ba ci alquran addoo la leer nañ moo tax alquran téere la boo xam ne bu addoo ci histoire dootoo laaj dara waaye tamit alquran am na fi ñu yàqoon seen deri tilimal leen bu alquran amutoon dañen continuer sen der ya yàqu ba pencam yalla lañuy sété ñent lañ kenn ki moy sayyidatuna maryama yaqon nañ deram tuumal ko ne amna dom ta amul jëkër wax ko wax ju bon yalla mujj safal ko ba mu sét wécc ba kenn ta yaqati deram ci lu leer naññi bam ne bam waxe bo xone talika isa ibn maryama qawmi xaqalati fi wala mu wax ci mom lepp leer na ca suratu maryama waaye tamit yonentu yàlla Isa yahuud yi tuumaaloon ko benn jàngoro bu mu ànd wax ci moom yépp yàq deram alquran na ñëw setal ko ba ne fa bara'ahu llaahu mimma qaalu wa kaana inda allaahi wajihan sayyidatuna Aysatu yàqoon nañ deram yàq goo xam ni kenn mënu ko setalati yàlla wàccee fukki aaya juróom-ñaar ci suratu nuur setal ko bam sedd wet ci boobaa legi ken waxatu ci dara yonentu yalla yusufa yàqoon nañ deram ak salikha wax ci wax ju bon ba nit man ta dem safara ah alquran a setal ko ci wa shahidun min ahliha ba mu leer naññi kon ñent ñi le bu alquran amuton sen der du set ba pencam yalla sayyidatuna maryama sayyidatuna aishatu ak sayyiduna yusufa ak sayyiduna musa mom lay wax ci ni nak yàq gi ñak der ci yonentu yalla isa ne ñoko ray yalla ne dañuy kàcc ñom ci seen biir ño rayante lool nak lay leral si ni te lool bu amatoon du leer bu mukk motax mu ne batay wa bi kufrihim da koo ataf ci li passé hon wa bi kufrihim ak sababu seen ak weddi wa qawlihim ak sababu seen ak wax ala maryama waral sayyidatuna maryama buhtaanan nar aziman gu màgg ne mi ngi nii am doom te amul jëkkër kon dafa mooy rek yaa uxta haaruna maa kaana abuki imra maa wa maa kaanat ummuki baxiya yooyu yëpp ñu wax ko ko wa qawlihim ak seeni wax ne inna naka ñun qatal naa rey nañ masiixa masiix isa laa wax ibnu maryama kay dooy maryama rasululaahi kay yonentu yàlla bi ñoo ko rey yàlla ne da ngeen di kàcc de wama qataluhu rayuñu ko wama salabuhu pandaruñ ko walakin li fi nekk subbiha nërëleef na lawum ñaan leen kañ ray muy tatt yaa nuus way na la si na daal ñi nga xam ne ixtalafoo wuute nañ fii ci ray ak yonentu yàlla isa la fi sàkkin aji nekk lañ ci sikk maanaam minhu ca ray ga nekk nañ ci sikk maanaam ca ray ga waaye maa lahum dédd ñaan leen bi ci ray googu min xel min ci benn xam-xam ila tibaa vani lu dul topp njort rek waaye nag wa maa qataluhu rayuñu ko yaqinan mbir mi muy aju hóor li ma li waxoon naa ko waaye maa ngi koy waxaat mu gën a leer bal li fi nekk daal rafaxoo yëkkati na ko laahu yàlla ilay jëmee ci moom muy ci asamaan wa kaana nekk na laahu yàlla asiisan di ko not ci nguuram xakiman di ko xereñe kon bii histoire moom leer na nañ yàlla ci àddu indi ko ci alquran lu ca waay waxati sa bakkan nga ko teg lu ca waay waxati yaa jël engagement ba mais li leer moom leer na nàññi mu jeex tàkk léegi nag mbugal mi leen yàlla yi mbugal ma waxoon la ko sànq ne amul kenn ci ñoom fii ba bay yonent yàlla Iisaa di wàccee yahood bu fa dem bala ngaa dee danañ samp yonentu yàlla Iisaa ci sa kanam nga ne gëm naa ko ñu door laa dégg doggali waaye nag gëm nga du la jariñ dara su demee ba mujj ak jamono nag bu wàccee juróom-ñaari at yim fiy néew yahud yépp danañ jaayanteeg moom gëm ko mu saxal ak maandu ci kaw suuf toj xërëm yi rey mbankuux yi lépp tegu ci yoon kon nag loolu lay wax si nii gëm giñ koy gëm kenn ku ne bala ngaa dee ak gëm giñ koy gëm tamit gannaaw bu wàccee moo tax mu ne wa min ahlil kitaab amul kenn ki ñooñu ahlul kitaab namm ca nasaraan ya illaa la yu illaa la yumina na lu dul ba dana gëm dana dëggal bi ci yontu yàlla Isa qabla njëkk ak dee xam ci firi mu njëkk mi moom yahud booba njëkk muy dee nasaraan booba dana gëm yonentu yàlla Isa waaye nag gannaaw buñ ko wàccee nag illaa la yumina lu dul nañu dëggal bi ci yonentu yàlla Isa qabla mawtihi njëkk deexal yonentu yàlla Isa deexal dëgg dëggalam gannaaw bi mu wàccee ba war fee def juróom-ñaari xat wa yowmal qiyaamati garab bis penc yakun dana nekk moom yonent yàlla Isaa shahidan di aji seede alayhim ci ñoom lañ ko daan tuumaal ak lam leen indil tamu leer ñi ñi wan ko gannaaw kon lii la wax ci yonent yàlla Isaa dana ci waxaat ca kanam dafa am nag lu yàlla dagganaloon ci ñoom caay-caay tax yàlla xaraamal ko pini leen mbooleem tayibaat yi mooy yu teey yi bu ñu ne tey yu teey yi rek mooy lépp lu yàlla wàcceehu di yax ci xaramal ko lu yàlla wàcceehu di yax ne dafa xaraam rek tayibaat la tayibaat yooya nag na borom we yi lu xam we dañoo mujj tere leen ko dootu leen ko lekkati ngir ak seen ak bon mu gi ñu ne déedéet lii ñun njëkkeewuñ ci ñun Yaaqooba muy suñu maam dañ koo xaraamaloon ci ñoom foofa ma ngi koy wax maanaam ca lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in la bi alim ñu ne waa kullu taami kaana xillan li bani israil illa ma xarama israilu ala nafsihi min qabl yàlla ne day yére dañuy kàcci yonentu yàlla yaquba waxoon naa la ko bañ ca xeggee lam lam lam dafa yore woon feebaru tànk mu ne nag bu ko yàlla saafaraxee dana bàyyi lekk lu niin mu jaaree ca ñoom nag ñu ne tayibaat yi njëkkeewuñ ko xaraamal ki ñun xaraamal nañ ko woon ci ba yàlla ne dañuy kàcc kon nag euh, lu lu lu baax di lu dagan mooy yàlla dana waral yàlla xañ ko nit ki tax kon mooy yàlla lu bon a bon la moo gaaw ci li la yomboon jafe la moo gaaw ci li la jege woon sori la moo gaaw ci li tijjee ko woon ci sa kanam tëju ci yow moo tax kon ñi mooy yàllaa tax tayibaat yépp yàlla xaraamal ko ci ñoom moom lay wax si nii moo tax mu ne fa bi ci sababu tooñ minel fee nga xam ne haadu ne nañ ay yahud lañ xaram naa ci lañ xaraamalee xaleem ci ñoom tayibaatin yu teey yépp te buñ ne yu teey rek mooy lépp loo xam ne yax rotut ci xaraamal ko wa bi saddihim ak sababu seen ak dëddu xan sabillaahi walis téeréeb yàlla bi moom la ci namu muy tawreet ñu tëdd ko kasiran lu bëri moo tax tayibaat yépp ñu xaraamal ko ak loolu rek mu ne déedéet wa aqdihim ak sababu seen ak jàpp seen ak jàpp waaye riba riba waaye mu ngi ci namu seen ak lekk ndax bala ngaa lekk dara da koy jàpp maanaam laaj gi ñuy laaj riba di ko lekk di ko jëflante moo tax tamit ma xaraamoon ci ñoom tayibaat yi te waqat nuhu tere xoof nañ xam ne walis leen bu leen lekk riba wa aklihim ak sababu seen ak lekk am waalam naasi xalalu nit ñi bil li ci neen te loola mooy nger ku ñuy atte lekk nger tax na ma xaraama ki ñoom tayibaat yi wa atadna xadul nañ daal lil kaafira ñeel xéeféeri minum ci ñoom xasaaban mbugal ali man may borom ak méttital de lii lépp ñi teg leen ko kon lekk nger dana xeñe lu bari ndax mooy yàlla la lekk riba dana xañe lu bari ndax mooy yàlla la mën na laa xañ nga dem sax ba dootoo mën a lekkati dagale nga li ñuy lekke mais dootoo mën a lekkati yàlla sadd la jabet yaa joxe dépense bi waaye ñu ne la nag bul paase ñetti kudduy ceeb bul reer guddi bul lekkati lu niin bul bul naanati café goo xam ne dañ koo suukaree suukar si ñi xam ñi mujj jox la sa suukaru bopp nga amee sa régime bopp fekk na dangaa lekk riba mbaa nga nekk fay lekk nger ba sa yaram wi jabet waaye yooyee nag mën naa dal koo xam ne ala kulli xaal lu dagaan rek la doon lekk waaye damaa bëgg a wane rek ci xeñ yàlla gi loolu mën na koo sabab su waaye nam ci nekk ku jabet ku ne rek loolu ko ko yóbboo déedéet nag kon ñu jabet ñëpp dañ ma mere nag su ko defee tamit laa rasixuuna fi l ilmi minhum mu ne nag di nga xam ne dañoo sax ci xam-xam am xam-xam mi ngi ci namm ku mel nii Abdullah ibnu Salaam ku jàngoon tawreet la manoon ko géejuwu ci xam-xam looloo ko may ba mu gisee yonantu bi rek ne ko jàkk la ne xarxaram bi ma gis nekkul xarxaramab kuy boromam di ñàkk wax dëgg teel a jaayanteeg yonantu bi ba muy ñëw Madinatul Munawwara rek la teel a jaayanteeg yonantu bi foofa te moom seen bokkam yahud la woon mu ne bi ma demee hadis bi ma jëkk mokkal ci yonantu bi mu ngi koy siyaara si maa ko dégg mu ne dee leen siiwal nuyoo ma dégg ko mu ne dee leen joxe ñam ma dégg ko mu ne dee leen naafila guddi fekk nit ñaa ngi nelaw ma dégg ko mu ne dee leen jox jokk bokk ñeenti ñeent yi laa fekk yonent bi digle ko mooy xadis bi ma njëkk a mokkal ci moom keroog bu ma duggee ci diina ji ku bëri woon xam-xam la géejuwu ci fànni tawreet yépp moo tax ku mel ni moom bëriwuñ sax ñu mel noona ci moom jaayanteeg yonantu bi moom lay wax si nii ne war raasixuuna fil ilmi ñoom lay tàgg moom la yàlla ne war raasixuuna way sax ña fil ilmi ci xam-xam rawatina xam-xamu tawreet minhum ca yahudiya maanaam war raasixuuna fil ilmi ñi nga xam ne ñoom sax nañ ci jàng xam-xamu tawreet man ko man bu rafet wal muminuuna ak way gëm ña ñoom de yoominuuna danañu dëggal bi maa ci lépp loo xam ne unsila wàcceef na ko ilayka jëm ci yow muy alquran wa maa ak lépp loo xam ne unsila wàcceef na ko min qablika mu jiitu woon la muy tawreet ak linjiil ak ya ko jiitu woon léegi nag mu ne wal na maa ngi jagleel tagg way taxawal ña asalaata julli dafa doon rafaa waaye ba mu ñëwee ba fii rek mu nasab ci nga yëgee doolee julli delluwaat na ca rafaa ga mu xataf ko ca wala mun wal muutuuna ak way joxe ña zakaata asaka bu ko defee tamit wal muminuuna way gëm ña billaahi ci yàlla wal yawmul bis aaxiri bu mujj ba ulaayka yooye gaay sa nuutim dinañ jox leen ajran payoor aziman gu màgg kon yàlla nee na ñi sax ci xam-xam bëgguñ daraja kenn mënul leen a nger buñ gisee dëgg rek dugg ca te dëggu ca moo dal Abdullah ibnu Salaam ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne tamit way gëm ña ala kulli xaal ci ñoom danañ gëm li yàlla wàccee ci yow ci sa téere bi dañ gëm tamit téere ya leen jiitu woon muy tawreet ak liñ jiit yàlla jox leen ñaari payoor ci seen ñaari ngëm yooya mu ne nag dëgg-dëgg mënumaa ñàkk a bàkk nag ñi nga xam ne fu waxtu julli jotee lañ doon jàpp yëpp bàyyi nañ ko dem taxawal julli kon julli foor na lool ba jéggi dayo moo tax waxut wal na salaata waaye dafa ne wal muqiimiina salaata maa ngi jagleel tagg way julli ña delluwaat nag au lieu que mu ne wal mu wal muut wal muutuuna la wax foofa waaye waxut wal muutina foofu la foofu la continuer di wax kon nag zakata bu waxut wal muuminiina waaye mu continuer wal muuminuuna yépp waaye ba mu xeggee ci julli rek dafa ko nasab mu nekk maxsuusun bil yi kon julli foor na mooy jaamu yàlla gi nga xam ne nit ki bu génnee àdduna moom lañuy ñuy njëkk ci biir bàmmeelam su baaxee lépp baax donte am na lu bon su bonee lépp bon donte am na lu baax moom daal mi ngi mel ni visa ci réew moo wàcc moo xam ne dañoo laaj nga war a am visa bu ñu xoolee visa ba baaxul bu xeboo sa identité bi baax dañ la refoulé boo amul chance ñu tëj la bu xeboo sa passeport baax dañ la refoulé boo amul chance ñu la bu xeboo sa kayitu juddu bi baax dañ la refoulé boo boo amul chance ñu tëj la kon bu sa xoor kor koor baaxee say julli sa say sa maanaam sa joxe asaka baax sa aj màkka baax sa visa bi tax nga war a mën a jàll muy julli baaxul rek ñu refusé dootuñ xol ci yeb dara dañuy wax na julli mi gëna yomb comme mo bon ya ci des jërul jërul jërul xol julli mi hepp importance comme mo bon ya ca des mom gënatu taxaw kon julli nañ ko gëna fonk bu baaxa baax taxaw ci ku duggu ci sa bir bàmmeel moom la ñuy réglé ci sa digënté ak sa borom nañ ko sammu topato ko bu baaxa baaxa baaxa baax légui nak léegi ji ci tegu dañu ñëw ci yonantu bi ne ko ñun daal mënuñoo seede ne yàllaa la yónni kuy sa seede lan mooy sa preuve ne yàllaa la yónni yàlla ne ko buñ la waxee loola man maay sa seede te man yàlla doy naa seede yow ma ci sax malaaka yi tamit ñooy sama seede kon ba gaa yi naan man yàlla laam duma yàlla na na na ma ko seedee xool sama malaaka yi seede ko borom xam-xam yi door koo seede yow tamit sa yonumtu gi maa ko seede malaaka yi seede ko shahidallahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti waaye fii tamit lakin allahu yashhadu yàlla mooy seede door a wax ne maanaam wal malaikatu ca kanam kon nag koo xam ne sag nu bóota goog sag risaalatu ko yàllaa ko seede ak malaaka yi ku ko seede lu ci yoonu yàlla xamatul solo moo tax mu ne lakin illaahu li fi nekk yàlla yashhadu moom dana seede ah inna aw xay naa kon ca kanam waaw kay inna naka ñun yàlla aw xay naa wax yu jëm ci yow yonantu bi kama aw xay naa comme niñ wax yoo woon ilaa nooxin jëm ci yonantu yàlla noox wan nabiyiina ak yonantu ya dox digganteem min bax ci gannaawam wa aw xay niñ wax yoo ba tey ibrahim jëm ci yonantu yàlla ibrahima wa ismaila ak ismaila wa ishaqa ishaqa wa yaquba yaquba wal asbata ak doom ya muy sët muy sët ya rek bu ko defee tamit wa insa ak insa wa ayuba ayuba wa yunusa ak yunusa wa haruna ak haruna wa suleymaan ak suleymaan maanaam ñoom ñi ñëpp wa atay naa joxoon nañ daawuda yonteel daawuda zaburan téere bu ñu tuddee zabur wa rusulan yónni woon nañ ay yonantu ñoo xam ne xat xasasnaahum nett lañ seen jaar-jaar xalayka ci yow min qablu ci njëkk wa rusulan am na ay yonantu yoo xam ne tamit yónni nañ leen lam naqsusum jàllatuñ leen seen i xisa xalayka ci yow wa kallama waxee na laahu yàlla Muusa Muusa takliman ak waxee wa rusulan xam na ci yonantu yi wa rusulan yónn yonantu maanaam rusulan ay yonantu lañ kon da koo baral ca la jiitu ca rusul gële rusulan ñoom de ay yonantu lañ mubassirina ñuy bégal képp ku leen gëm ci aljana wa muzirina ñuy xupp képp ku leen weddi ci safara lu tax yàlla yónni leen li yàlla ko na ngir ba nga nekk li naa si ñeel nit ñi an lay waral yàlla xujjatan lay ne law laa arsalta ilayna rasulan laay bañ ba'da rusuli gannaaw yonantu yi wa nekk na laahu yàlla asisan di ko di ko xereñe ah suñu ab laar moom nga fee ñàkk de loolu baax na de buñ tëbee aaya ji rek nga wax ko kon nag yàlla nee na fukki yonantu ak ñaar la lim fii ka ca jiitu mooy noox mooy yonantu bu yàlla yoonal mooy première yonantu bu yàlla alag aw xeetam yàlla alag na xeetam wa muy ca ndox ma ngeen jàngoon ko ca bam ne ko Euh, maanaam dugalal ci sa gaal gi maanaam dafa ne ko euh, isnail fulka bi naa wax wa waxyina defaral gaal ñun ñoo lay wax yu noo koy defaree waaye defar ko tamit ci suñu digal ah léegi nag yonentu yàlla Isa yonentu yàlla noox defar gaal ga ba gaal ga mel na mu war a mel ni seen ñu di ko romb rek di ko ree neen waxoon nañ leen dof la fii jéeri moo fi ne géej sax amu fi naka lay gaal di mën a dawee ci jiir yi di ko ree rek ne dofam gi xem mi yegg na mu ne leen in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruna billaahi yéen nag may ree waaye li may liggéey bis bu sottee danaa leen ree léegi nag xam nga yàlla ne ko maanaam yettal gaal te doog tëg te toog déglu ma mi ngi mel ni rek sa doom joo wax ne ko waaw demal nga fàq yar taxaar ma ca néeba loolu boobu ñaar rek a mën a am yar moom fuñ ko fuñ ko fuñ ko fuñ ko fàqaloo ñaara ñaara fa xew mooy benn ñu dóor la ca mbaar ñu mbaa mbaa ñu dóorloo la ca waaye sa doom nag ba ne ko faqal yar xaar ma ca néeba bu xamee xel dafa war a dégg dañ maa war a dóor moom nag bañ ne ko noox fàqal yar ta toog tegluma muy sikk sàkka ne waa sama nit ñi dañ leen war a xàggam yàlla ne ah jëru sikk innahum muhraquna dañ leen di labal moo tax foofu weddiwut sax mu indi mu indi tawkiit su ko defee nag léegi nag gaal ga pare na mu ne ko usluk fiha min kulli zawjin isnayni xeet wu ne dugal ca ñaar waaye nit ñi nag duguñu woon ñaar nit ñi mën nañ quatre waaye xeet woo waxate wu dul nit rek ñaar la golo ñaar bu góor bu jigéen bukki bu góor bukki bu jigéen mbaam àll mu góor mu jigéen jën wu góor jën wu jigéen mbaamul dara lépp mu dugal leen ci def ko ñetti étage benn étage bi njanaaw yi benn bi mala yi benn bi nit ñi gaal gi daw juróom benn weer door teer ca doj wale muy juudi yàlla ne wastawat alal juudi yi foofa nag lañ wàcc sanc benn dëkk tuddee ko sanaawu boobu sax ba léegi mooy sanaawu yaman mooy capitalu yaman mooy dëkk bi njëkk a sanc ci kaw àdduna gannaaw bi àdduna bi raafee mu nekk fa nag sax fa juróom fukki at nekk ci jàmm ndax njaboot gi ñépp a ko gëm su ko defee nag noox door a door a génn àdduna moo tax nga dégg alxuraan di wax fa labisa fihim alfa sanatin illa xamsina sanatu bu ko arab waxee rek mooy at mu naqari bu waxee am rek mooy at mu neex mu jël alfu daafal ko sanatu mi nga xam ne mooy firi at mu naqari ne junne at mooy diir ak nubuwatoom nga waaye junne yépp a métti junne yépp a naqari junne yépp tiis la ko dund illaa xamsina aman lu dul juróom fukki at yu mujj rek nga xam ne labal nañ nitam ña foofu rek moom moo neex ca dundam ba bu ko mooy yépp coono rek la daa nañ ko dóor daanañ ko saaga daanañ ko wax wax ju bon lépp muy muñ rek dem na ba yàgg nag mu mujj muñ nga jeex mu ne rabbi laa tadar ala al ardi min al kafirina dayaaran ndax innaka yu tadarhum yudillu ibadaka wala yaldu illa fajiran kafaran loolu kon la mujj wax dem na ba amatul pexe nag mu mujj ñaan yàlla yàlla nag léegi nooxa ngoog diggante noox ak yonentu yàlla aadama junnee xat la léegi diggante yonentu yàlla noox ak ibrahima moom la ca teg junnee xat la diggante Ibrahima nag ak Moussa moo sori foofu ñaari junnee xat la diggante Moussa ak Isa junnee xat la diggante Isa ak Sayyiduna Muhammad juróomi téeméeri xat ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent la loolu mooy mooy seen doxante kon àdduna bi lu yàgg yàgg la waaw adduna lu yàgg la yëpp jaar nañ fi yonent bi ñëw bi yonent bi daanaka biñ ko yónnee léegi rek ah, boo ko jëloon ci hijjiree ji ñu ngi ci. junne at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak lu teg xam kon loolu kon lu bari la waaye boo jëlee nga yokk ko ca ñeent fukki at yi amoon ñu door koo yónni mu def fukki at ak ñett door a dem gàddaa daanaka bu yonent bi juddoog léegi rek junne at ak juróomi téeméer yu manqué tuuti la kon àdduna lu yàgg la su ko defee nag kon yonentu yaa tudd na ci yaquba tudd na ci yonentu yàlla ishaqa yaquba ko jur tudd na ismaila ñoom ñaar ñoo bokk baay su ko defee tamit muy ishaqa ak ismaila ñoom ñaar kon yonentu yàlla ibrahima moo leen jur su ko defee tamit yaquba ñëw mooy mooy mooy meññ yonentu yàlla yusufa njaboot gu jigéen gu góoru kese la ko yàlla joxoon ayuba ñëw mooy borom muñ gu yàgg ga yonentu yàlla yunus ñëw mooy ki jën wa wannoon fa nabasnaahu bil araay jooju ngeen jàngoon wa huwa saqimun kooku mooy yunus haruna ñëw mooy mbokkam yonentu yàlla muusa moo ko magoon ñu bokk nubuwatu ga suleymaan ñëw mooy borom nguur gu rëy gu rëy googa ak baayam bi tedd ja yonentu yàlla daawuda bu ko defee ñii ñëpp jaar nañ ci mu tudd leen daawuda ñu jox ko sa buur bu ko defee ñeneen ñi ci des nag koo ci dégg amul téere dañ koy wax yu téere ka ko ka ko jiitoon ca gannaawam li ko doree yonentu yàlla noox ah, ba yonentu yàlla kon eh, kii Muusa ba ci yonentu yàlla Isa ku fi jaarati rek dañ lay wax yu xat tawreet mu nekk sa teg si waaye amaatoo téere noonu la doon yàlla doxalee nag ba yonentu yàlla saa ñëw mu doon koo jox linjiil mu nekk ca moom tamit ba yonentu yàlla Muhammad ñëw mu jox ko alkitab muy alquran mu ndar képp téere yépp benn téere dootul wàccati doy na walis lépp la téere yee ëmboon yépp moom kenn ëmb na ko daanaka boo jëlee zabuur ay waaraate moo ci nekkoon ak sàbbaal yàlla ak màggal ko ak yu mel noona mais amul benn digle amul benn tere yooyu rek moo ci nekkoon léegi nag mu ne ko yonantu yi am na yoo xam ne nettalil naa la seeni jaar jaar yi mu ko nettalil seen jaar jaar kat ñaar fukki yonantu ak juróom rek la ci téere bi mu ne am ci yoo xam ne nag tudduma seen jaar jaar waaye ñu ne yooyu yëpp boo leen calculer cent vingt quatre mille prophètes la yàlla am cent vingt quatre mille la yonantu bi amoon ci ay saxaaba cent vingt quatre mille ay ci wàllu yàlla tamit ñooy am lim bi du passé cent vingt quatre mille yàlla yëpp duñ passé cent vingt quatre mille su ko defee tamit nag cent vingt quatre mille yooyu ñu ne genn wàll gi yépp jalaal nee na ci banu Israël lañ bokk beneen wàll ga nag yeneen xeet ya séddoo ko ñoom ñoo ëpp ay yonentu ndax ñoo ëpp jàngoro ñëpp gën a feebar ñëpp moo tax ñu bari ay médecin yu leen war a yu leen war a régler ngir nañ nañ mel léegi tamit ci loolu la ñuy continuer euh, yonentu yooya euh, yi a nettali ko li nettali ko ci cent vingt quatre mille prophètes moo am mu jël ca trois cent treize yónni leen tànn ca euh, euh, vingt cinq tudd seen tur ci alquran tànn ca juróom ñoo xam na ñoo gën ñëpp muy ulul azmi tànnaat ca biir juróom ña ki gën ñëpp muy sayduna muhammad kon moom mooy première yi première yi yonentu yooyu yëpp nag dañ daan boole ñaar maanaam bégle ak xuppe bégal ñu leen gëm ci aljana xupp ñu leen weddi ci safara bana loola nag bi ci tegu nag mooy aaya bi ñu waxoon lakin illahu yashhadu ñu ñëw ne ko yow waaw yaa wax ne yàlla la yónni kuy sa seede luy sa preuve yàlla ne ko maay sa seede maag sama malaaka yi te sama yàlla gi bañ ci amee sikk sax maa doon sama seede sama bopp ak sama malaaka yi boroom xam-xam yi door a ñëw muy shahidallahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu walul ilmi qaiman bil qisti kon nag yow sag yonantu gi maa ko seede yàlla lu mu seede ne ku ko weddi foo jëm yoonu yàlla nekkut ci moo tax mu ne lakinnillaahu li fi nekk yàlla yashhadu dana mu seede bi maa ci lépp loo xam ne ansala wàccee na ko ilayka jëm ci yow ansala woo wàccee na ko bi xalmi ci xam-xamam loola lépp làmboo ne yow yonentoob yàlla nga bu dëggu wal malaayikatu malaaka yi tamit seede nañ ko wal malaayikatu malaaka yi yashhaduna dañuy seede ne yow yonentoob yàlla nga waaye waaye wa kafaa doy na billaahi ci yàlla shahidan ci seede waxuma sax malaaka yi tuddutuma malaaka yi mais man sama seede rek doy na inna lazina daal ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ yàlla wa saddoo ñi dëddu an sabilillahi walis yoonu yàlla wi xad dalloo sànku nañ dalaalan ak sànku baidan gu sori dëgg si lazina daal ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ yàlla waxa la moo ñu tooñ yàlla ci jëfandikoo lu mu leen tere woon lam yakuni nekkut laahu yàlla maanaam li yaxfira di waage jéggal lahum ñeel leen wala li yahdim caaken mu leen di gindi tariqan jëmee leen ci yoon ah illa tariqa jahannama xanaa lu dul mu gindi leen jëmee leen ci yoonu safara rek xaal leen te seen ak ci safara abadan faw wa kaana nekk na zalika loolu yasiran di lu jàppandi alallaahi ci yàlla dugal leen safara lu yomb yàlla la kon wax naa ko yéeféer ca loola ñi weddi yàlla ba dee ca weddi ga yemuñ ca ñuy ut ku leen weddale ku bëgg a tegu ci woon ñu dëbee la sànku nañ bàyyi nañ tawreet bàyyi nañ linjiil yàlla ne ñu sax ca tamit seen ak weddi ga sax dàq ji tooñ yàlla yàlla de xaajut ba leen di waaj a seen bàkkaar ya xaajut ba leen di waaj a gindi moom daal xanaa dafa leen di orienté rek jëmee leen yoonu safara ndax bët bu set ñu ngi wax ak jëf lu leen di yóbbu safara safara kat la gën a gaaw ci lu ca yóbbu nit mooy bokkaale ak nuur ci mooy aljaana li gën a gaaw ci lu ca yóbbu nit mooy wéetal yàlla ak jëfee digal yi baxi tere yi ñoom nag yooyu yëpp defuñ ca dara léegi nag bàyyi na loola yàllaa ngi continuer yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi bu ko waxee rek waa màkka ñaareel ñëpp dugg nañ bu ne yaay wàll si na la gën a bari waa madina lay waxat atte moo cay juddoo mu ne nag xadd jaa akum sa dëgg-dëgg dikkaloon na leen dikkal na leen sax arasolu yonantu bi bil xaqi mu làmboo dëgg min rabbikum bàyyi ko seen borom fa aminoo na ngeen gëm fa aminoo na ngeen ko dëggal bu ko defee mu am lu mu fa xasafee bu ngeen ko dëggalee tamit na ngeen dikkee xayran loo xam ne moo gën làkkum ñeen ci lii ngeen nekk caay-caay gi bokkaale gi baleen ko te ngeen dikkee lu ko gën te mooy wétal yàlla wa in takkafaroo su fekkee da ngeen a weddi yàlla yéen ñëpp fa inna lillaahi aji nekk la ñeel yàlla maa fi samaawaati li nekk juróom-ñaari asamaan wal ardi ak li nekk juróom-ñaari suuf mbindeefam lañ jaameem lañ moomeefam lañ kon moom xoomal na wa kaana nekk na laahu yàlla man di xamaa kon man di ko xereñe kon bu ngeen weddee yàlla mënu leen wàññi yàlla dara tuus ngeen ko mënta weddi ku moom asamaan ak suuf ak lim ëmb ci ay mbindeef te loolu mooy li ngeen xam li ma am ci mbindeef te xamu leen ko wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa kon yéen lu tuuti ngeen ci samay mbindeef su ngeen ma gëmee seen bénéfice la su ma weddee tamit seen toroxtaane la